asalaamaaleykum mbokk yi ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi ñu ngi nuyu ñëpp di ñaan yàlla doole dal dool di jàmm si mi ñu ngi nuyu Bougane di ko ñaanal wér di ko ñaanal ñu topp si ginnaawam ñu personnel bi ñu ngi nuyu Cheikh mbaki Ndiaye si Pikine ak Soxna Masala di nuyu Soxna Gagne Gueye maa ngi nuyu le colonel Moussa Fall des eaux et forêts ak le commissaire Demba Sarr ngi nuyu le docteur du centre horticulture bu ñuy Cambérène bi nga xam fi la tourné émission bi Ma ngi nuyu Cheikh Thiaw ak soxnaam Aminata Gueye di nuyu Asphal transporteur si Yëmbal Ma ngi nuyu di sargal Afi Maka si Espagne ñu ngi nuyu monsieur le maire Madi Ba di nuyu aussi moom Mamadou Ndiaye di sapeur à la retraite si amoon cinq maa ngi nuy waa Xombol yëpp di nuyu waa Géejawaay di nuyu waa amoon cinq di nuyu ñëpp tey dañ ñëw si émission bu am solo fàttewuñu aussi Ousmane Cissé bu mine et géologie ñu ngi koy sargal ñu koy wax la spondylarthrite ankylosante spondylarthrite ankylosante mosoon nañu si def émission yàgg na. mais dafa bari ñu continuer di ko laajte mu ne tamit bu doy waar bokk ci maladie rhumatismale yi jàpp yax ak sidit surtout yax yi fi muy gën a attaqué nag mooy digg ginnaawu nit ñu koy wax colonne vertébrale ak la bas du dos mooy maanaam fi nga xam ni colonne vertébrale boo wàccee ci ginnaaw fi la dajeek ndigg li foofu ci suuf ñaar yooyu la ëpp lu muy jàpp mu ne nag li ko wutaleeg yeneen maladie rhumatismale yu bëri yu mel ni arthrose nga xam ni presque xëy na booy jëm la lay sonal moom li ko dalee fukki at ak juróom ba ñeent fukki at ñooñu la gën a sonal tranche d'âge boobu fukki at ak juróom ba ñeent fukki at mu nekk nag loo xamante ni ñaari articulation yi muy njëkk yi muy gën a gën a gën a laal mooy oom yi oom ak coston bi ñu koy wax cheville yi ñaar yooyu la ëpp lu muy laal muy oom yi ak coston bi bien que nag léeg bu demee ba vraiment sori ginnaaw colonne vertébrale boobu muy di ginnaaw gi ak oom yi ak chevet bi mën na laal orte yi muy baaraam léeg mais li muy njëkk gën a touché daal muy ñett yooyu muy digg ginnaaw gi le bas du dos fii digg ginnaaw gi maanaam colonne vertébrale bi mooy yàqu di ginnaaw fi mu laaleeg ndigg li wax boobu bari na lu fay sonal nit booleeg oom yeeg chevet bi si si ñi muy def nay indi ay léeg mu jàpp inflammation intestinale jàpp butit bi di ko lakk wala it mu jàpp bët yi di metti léeg-léeg nga am ay mettitu bët yu ànd ak mettitu yàq fekk feebar bii la muy spondylite ankylo ankylosante mu bokk si xeetu maladie rhumatismale yi lii danger bi nag mooy boo si jugul dafay indi li ñuy wax raidissement maanaam yooyu day dem ba dootul lemu maanaam pour nga sëgg sax sa digg naaw lemu dootul yombati day indi raidissement maanaam day dem ba yow nii rek ngay mën def mais doo sëgg dina dem ba genoux yi pour nga lem ko day dem ba costelle bi sax pour nga tourner sa problème la kon loolu mooy jeexital bi gën a bi si li koy sabab nag bari na am nañ si lu ñu tënk benn mooy les facteurs environnementaux mooy lekk yeeg dundin yeeg infection yi ndax léeg-léeg nay jume si infection sexuellement transmise muy feebaru sëy boo xam da nga ko am fajoo ko mën na ko jur comme ay méttitu feebaru biir aussi yu laaloon biir bi yoo fajul mën na ko mën na ko jur kon danay indi danay jug juddoo si infection vaginale comme si ay infection Euh, abdo abdominal ou gastrique yoo xamante ni da nga ko fajul mu indi ko kon dinay attaqué yax dinay attaqué cartilage soo ko jugul nag dina dem ba di ginnaaw gi maanaam li ñuy wax vertèbre yi dafay mel na luy luy luy lay lay luy suudewu maanaam di vertèbre xam nga boo xoolee di ginnaaw dafa diggante ñaari vertèbre ne dafa am lu ñuy wax disque intervertébral dina dem ba nag mouvement yi nga doon mën doo ko mën day indi raidissement bu ko defee yax yi tampaloo yax yi yax yi suudewu

ñaari garab yi ñu ci digle yoo xamante ni vraiment am na ñu ñu ko tegal ba tegtal ba ñu am si tawféex mooy reenu daxaar ak reenu mbul mbul ak daxaar mbul moom dañ koy faje même paralysie amee ñetti reenu mbul ak ñetti reenu daxaar da nga koy togg ba mu ñor si lu toog litre ndox ak genn wàll su baxee fukki minute nga denc ko di ko naan par genn wàll kaas boo ndekkee boo añ wala si kàttan yàlla loolu ñuy wax spondylarthrite ankylosante bu dee moo la da nga tàggoo ak ak moom ñëw si question ni ñëw tey question bu njëkk bi daal kii nee na daal dafa gis euh, jant bi dafa toog daal gis jant bi dafa jàkkaarloog moom si gént toog jàkkaarloog jant bi nii waaw kooku moom lu baax la jàppale daal sa la ngay liggéey bu yàlla dimbaleetu da nga siy occupé une vraiment haute fonction da nga tam daal ba occupé poste boo xamante ne daal bu gën rëy poste yi dina bokk si poste yi gën a rëy si si réew mi kon santal yàlla gént koo gént ku baax la mooy gént jàkkaarloo ak ak jant bi kii daal nee na moom dafa am fièvre doo xam ne lu ne def na ko daal tàngoor yaram nanguwul wàcc wutal reenu naan doog naan doog naan doog moom bu fièvre tëree wàcc rek yaram tàng gëj tëwoo wàcc wutal reenu naan doog comme dafa weex wutal ñaari reen rek nga baxal ko si litre ndox di ko naan par kaasu attaaya boo ndekkee boo añee bool si kàttanu yàlla dana dana dana wàcc tàngoor yaram moom ñu leen tàggu fii leen jox taataay si beneen rendez-vous jërëjëf